ba pare def chef de délégation parlementaire au parlement de la CEDEAO parlement CDAO, c'est un parlement prestigieux Moi boo xam que ci parlement au niveau sous-régional et régional moi, ci gën prestigieux ci Afrique parlement la sais que ne gis nga pour deux postes qui sont a dem ku ne fa non seulement da nga fa jàng mais bari ndax fukki réew ak traitement bi ñu traité ci ci entretien amul activités yi ñu am parlement boobu nag nga xam budget 17 milliards président de la république ci ci baaxam ci kóllëreem ci jàpp ne man magam te xam ko pour ma yor ma ci coalition bi lépp ñëwaat premier vice président de l'assemblée awma reproché Ben problème rek la am début avant même ñuy investir je ko tête de liste bëgguma nek président assemblée ndax dama mi ngi mars 2020 mandat a at lama jox ci liguey bo xamné man dama ci lot mënuma ko jeexal activité at la defit mu ba chef d'état yi yokk sunu daraja ak sunu man-man muy acte additionnel bi nga xam ne bii am nañ ko te léegi ñun ñu bokk ci ñuy càmbar budget bu communauté bi di ko xam di ko voté loolu di liggéey bu rëy loolu jamono bi ñu koy def day taseeg budget Sénégal ñu koy war a xool kon day mel ne boo nekkoon tey président boobu boole koog bi du mën a ne da ngay bàyyi bii jël bii est-ce que président man la xalaatoon waxumako bu ko don def mais man li ma ko warona wax moy politique la koy wax ak ab opinion moy gëm assemblée nationale législature bi wa APR ak ñi and ak mom gën ko jege buñ sañon ab APR la koy jox du ko jox ku bokul APR wax na ko waxati ko mais ab équipe bo ci bokkee wax la nga wara wax wax ko sa kilifa wax ko ñi ca bokk bu dee kilifa gi nee na moom jàpp na ne nii la da nga ciy ànd comme nee na moom capitaine équipe bi Moustapha Niass da bëgg ab allié la mu continuer man milieu terrain wala ailier la ma bëgg jouer loo mooy premier vice président ak président du parlement de la CEDEAO dama ko ciy sant gërëm ko ci meruma ci te ñëppit loolu laa leen wax li ma waroon daal mooy ma wax ko ndax mosuma def sama bopp wax dëgg yàlla ne man lay jox assemblée bi mosuma ko def sama bopp mosuma ko laaj yit loolu na leer ci bopp nit ñi kon loolu wax dëgg yàlla noonu rek la demee.